dañuy dem bu ñëwee dañuy jëlaat bal Ibou Fall foo jëm bu ngeen jël bagage yi ci oto bi dugal ko. ñaari oto yi taxi bi ak ba ñoo bokk ñoo bokk dañoo bokk oto tàggalu ko. waaw da ngeen di dugal bagage yi ba pare. da ngeen di dugal bagage yi laay xool moom mi xam ne bagage yi. da ngeen di dugal bagage yi. da ngeen di dugal bagage yi. daa am jiitu voilà taxi bi ak beneen oto bi dañoo bokk ñoo bokk bagage ana taxi bi. muy ginnaaw ak oto bëri dem leen jël bagage bi ngeen indi. voilà dem leen. non non am problème jàmm rek loolu day baax. non en tout cas bokku ci sama classement man loolu laa wax li ma waxoon te ba li ma waxoon demb barki dem moom laay waxtu yi jaajëf waay. bay tëj. Ndiaye. Ndiaye. Ndiaye yeneen bagages yi dañ ko wàcc aí dugal ko mën a seet ñu ko. Cheikh. Cheikh. eh Cheikh. Cheikh jox ma yooyu. Kaay. Aliou. non da leen di daal. waaw dama réglé loolu. nañ jëm réglé loolu. Sewru Fall. Sewru. ga Bagas day dem xool day dem. non dara demagul Mor. Mor. Mor bagage benn demagul benn demagul. bagage dugal waaw ñu yóbbu nañu bagage bi kañ lañ ko yóbbu. kañ lañ ko yóbbu. bu wax loolu yóbbu nañu. waaw kon li ma. donc am na yéen a. lan moo fi kii bi ñaar la. na dem xool ko. beneen ma ñu xool. xoolal saako mel nii. saako mel nii loolu ñu xawoon. xoolal bu fa nekkee. bu kenn dugal bagage yi ku dugal bagage yi ah. bu ko dugal. dama xool ko. non day ñëwaat day ñëwaat mu ngi ñëw. demal demal demal ñëw. mbay e mbaye sa ginnaaw bi dara newu ci ana ndewal ana ndewal ndewal dugg na ci biir yaay nii nii la non xaaral Mor dem na benn bi del la rek. xaaral ci dem xool ko. parce que yoo xam ne wul bi teel ba yàlla xam na ne may la ma ma dem ji récupéré lay ñëwaat. dama leen ko ñaan.